tey bisu alquran sunu mbokk mu tedd ni El Hadji Modou Fall def ko ni mu am ñëpp ci jëflanteeg wëllëreeg cofee la dëkkaaleeg collaboration ñëpp ñëw nañu ñu wax leen ngeen jëf ci teewaay yu rafet wax leen nit ni ah lii day mooy wane ni Sénégal amul lu ëpp daara pétrole a ngi fi ñu koy dudd kenn gisagu ko phosphate a ngi fi ñu ngi koy génne waaye njëriñ la dëgg-dëgg génnagul laneen ak laneen a ngi fi mbay mi sax mu ngi fi te ku ne xam na ni nawet yenn saa mu mun naawee wet ku jógee Tiwaawan ba fii wala Ndakaaru ba fii da xam ni ndox dafa naawi rek waaye ñu ngi ñaan yàlla na matali ko yàlla ubbi mu nekk ndox mu sottiku waaye yàlla bu mu yàq dara tabarakallah ñu ñëw rek feeñal nuyoo xalifa ba nu jóge ca moom ca Tiwaawan Seydi Aboubacar Sy Mouhamadul Mansour nuyoo rakkam ya Serigne Maodo Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz ak mbooleem njaboot Seydi Hadji Malick nuyu waale mbokki taalibe yi fi rot si yëpp te ñu bokk ak ñoom leeru Seydi Hadji Malick waaye nuyu waale mbokk yi aju ci kër Serigne Touba ak turuq suufiya li gën a yaatu te ñu teew fi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaye di ñaan màggal gi ñu jëm yal ko yàlla rafetal te def ci ndam la mu ca daan def defal ko Serigne Mountakha ak mboolem ëttu diine yi nekk ci réew bis bii nag dafa am solo daara ji dafa am solo alxaaji Moodu bi mu amee yéene ak mébétam ubbi bokk nañu te ñi mu ñëw wax kook nu daaw la njëkk def programme bi yàlla dogalul nu fekkee ren nag mu séddale ma ni ma boo ñëwul ah danaa toj taas day màgg lool bëgg naa macha allah bëgg naa bëgg naa bu ba. ah c' est fa nekk rek yes ak mbooleem délégation bi mu àndal. bi may wax léegi di tudd Touba booba mu ngi dugg si. pour wane rek ni ëttu diine yëpp benn la. tabarakallahu ñi fi teew si ñep ben patron lañu am mu di yenen bi sallallahu alayhi wasallam bis bi na di bisam di bis alquran di bisu dara te senegal dara gën ci li mu am ñu jaajëfal kon képp koo xamante ni jaral na la nga bàyyi sa aajo ñëw teew si ngir sak ñëw teew si ngir bëgg a bokk ci yiw ñëw teew si ngir doxal li mag ñi daan doxal te mooy bu kenn ay ñëpp ñëw fekkee yal na yàlla nangu ñu ñaanal njaboot tout tànk yi doon jàng léegi alquran yàlla na leen yàlla def ëllëg ñuy mag di ay mag yu am ñaan yàlla na yàlla ubbi seen dënn mu mokkal mokkal ak sago jàng ak sago am xam-xam yëpp te yaakaar naa ni lii alalu ku ko fekke njaboot yi itam ñu ñaanal leen yàlla wér daara dafa am solo nun penc ma nu jógee di penc Seydi Hadji Malick daara moo di cëslaay Maodo dafa waxoon ni talalna ñaari loxoom ca makka yàlla wax ni kaaba gii de ku fi ñëw ku ne làmbatuma fi daj ma fi sidi Hajj Malik wax na ni lambatuna yàlla ca kaaba ga ca ëttam daj na ko bokkoon na ca lamu ko ñaan suma ma delloo Sénégal yàlla na ma yàlla may barab bu may wéet ubbi fa daara boole ca di ñaq di dunde bi mu ñëwee dimbali ñaanam la njëkk def parce que ñaan dañ koy dimbali boo xasee ñaan walla nga ñaan lu ci kilifa diine wóolu ko mag mu sell ni ko ñaanal ma bu xasee ñaan ba noppi nag lay nangu ñaan nga yow yaa koy def te mooy dimbali ñaan Seydi Hadj Malick wol beuti ko ni dana dimbali sama ñaan la mu ñëk def moy ñew samp daara daara je mu taamo ko ci njaarde njaarde nekk pays boo xamante ni fii ci kadior la yalla def mu ubbi ko fa ay mag yu yalla itteel di wër fuñ koy jaare dégg ni ubbi na daara ñu ngi dee ñëw àndandoog moom ci wut googu mu doon wut boromam ba première promotion ba mu ci njëkk a formé quatre vingt dix lañu ci ay muqaddam ci ay mag ci ay magu lislaam wëlbatiku tasaare leen daara yooyu mën naa wax ni tey daara ji ñu ubbi fii ci Kébémer ca banqaas daara yooyu na ñu ngi ñaan yàlla na ko yéege yàlla na ko yàlla yéege ca màggaay ga yéege ko ca kawe ga yéege ko ca xam-xam ba yéege ko ci liggéey yu mag bu mu mës a nangu yàlla boole ci bii ñu ñëw nag ndokkeel ko massawu ko coono jaajëfal ko encouragé ko parce que du ku xëy rek ni damay ubbi daara parce que ubbi daala dafa am lu mu laaj dafa laaj yow mi koy def nga am xam-xam ba yow mi koy def nga am melokaan ba yow mi koy def aptitude yi mën a tax nit mën a ubbi génne ci dënnam dugal ko ci dënnu njaboot du ku nekk mu yàgg mu dafa laajit teew dafa laajit taxawaay te yooyu yëpp benn bu ci ne gis nañ ko ci njaboot pour tànk yi nga xamante ni moom la doore mu nekk promotion ñu ñaanal leen yàlla na ñu yeggale ak jàmm sabab waaye daara ji yàlla ci yàlla teg loxoom ñu ñëw encouragé ko ñaanal ko yàlla ñaanalaale njaboot yi fi jànge waaye itam ñaan mbokk yi ko teewe kenn ku ci ne bul xeet sa lor ci lii ndax lii dafa dugg ci formation wu doomu aadama te formation wu doomu aadama dafa am solo

te université te ña ko jiite woon la bokk ñëw na ba tàyyi yi fekkanteeg sëñ Aziz ca Tiwaawan ànd ko ak groupe ba man nii la sëñ Abdoul Aziz waxoon ni naa nekk seen njaatige kër sëriñ Maodo nekk seen daluwaay loolu yàlla dogal na ko ci moom ci cursusam ci yoonam ci doxam jëm ca kon bu nu ñëwee fekk ko tey mu nekk le maire de Kébémer ak taxawaay yi mu taxaw ci wàllu assemblée ci wàllu PDS ci wàllu itteen ci dëkk bii nga xamante ni dafa dellu siwaat comme ni Modou def mooy bëri na ku dëkk fi barab xëy-xëy gent dëkk ba dem dëkki faneen waaye moom dafa ñëw dëkk ci biir Kébémer Modou mii choix bi mu def ku xam famille bi mu bokk El Hadji Asfal bii ko jur rakkam rakku imam Mamadou bi mu ko tuddee fii ci Kébémer dañ leen a xam ci daara ak alquran ca dëkk ba ca àll ba dañ leen a xam ci daara ak alquran mu taamu ñëw ni ah man kat du ko ubbi Dakar romb dëkk yëpp du ma ko ubbi Thiès du ma ko ubbi Tëngéej du ko ubbi Pout fan laa koy ubbi Kébémer da nga xamante ni fa lañ ma joxe woon sama turandoo mu nekk ak man formé ma ba li ma jot a xam ak sama sëriñu daara bam ma mujj féetaleel fa laa koy ubbi mu ñëw fii kon loolu dafa nekk lu ñuy war a encourager ndax ñëpp mënuñoo ubbeendoo ca Ndakaaru amaana mën na yéwén waaye ubbeeku fii ci Kébémer la dàq ñu encouragé ko ci choix bi mu def waaye ñaan it yàlla na ko fi yàlla fekk jiw yàlla na ko yàlla sampal samp bu dootul sempiku boole ko ñëpp moo du nitu ñëpp la ku ko xam ku ne xam nga ko ci ree xam nga ko ci bégle yenn say sax nga gis ku la ni waaye xanaa mënoo wax ni ko reetaan yi ëpp na ma ni ko déedéet bàyyi ko muy ree ndax ree ku dëkk di mer bu yàggee da ñaw ñaaw ah kay reetaan dafa baax c'est une thérapie le rire fait partie des thérapies di ree da nga war di foo toll yenn saa yi nit ma ah, waaw mënoo ko wax ni ko na bàyyi dex-dex yi ma ne ko bàyyi ko muy ree ndax moo gën muy jooy beneen bi mooy nit ñëpp la parce que ku ànd ak ñëpp la ku bàyyi xel ñëpp la man nag dama cee am tànneef ndax danoo bokk di ndaw ca banlieue bu Dakar ubbi daayira àndandoog ñoom ci daayira ba mu xëy xëy waajuram d'accord ci mu dem tukki mu dem tukki te taxul mu baba bu ma tukkee Italie moom lay njëkk a gis ndax bu may wàcc rek moo may teew ñooy àndandoo naanandoo suñuy café ñooy àndandoo waxtaan ñooy àndandoo shopping ñooy àndandoo commenter li xew ci actualité ñooy àndandoo di toogaale ku ko xam ku ne dégg nga ko mu ne sama sëriñ bu dee am na sëriñ te di ko tudd kenn la muy sëriñ Moustapha Bou Al Amine ça l'a toujours fait muy ay seede yoo xam ne même bu dul woon dëgg mag dañu wax ni la muy wax toujours loolaay dëggam te mu muy koy wax di ko wax publiquement di ko wax ci télévision yi ci média yi ci internet bi ñépp nag foog nañ ñi maa ko mënal dara jërëjëf barakallah fikum jazakumullah xayran ñëpp foog nañ ñi maa ko mënal dara man ak Serigne Abdoul Aziz mii di suma wëy nii waaye ñun mënaluñ ko dara ndax moom yàlla daf koo binde nii mu ko binde nitu neen la du nit ku bëggul lu baax ku bëgg lu baax la ku koy wut la ku xam yoon wala ku koy melal allahuma la aduruhu yàlla bu mu nekk loraange ci moom waaye mu nekk nag nit ñëpp moo waral tey jii ñii déplacé wu dooni amuñu jot xa am nañ ko parce que ñàkk nañ ko lool amuñu ko waaye ñëw nañu ngir fekk si ko encouragé ko ci lii mu def ñaanal ko ci yàlla yàlla gunge ko ndamam te jàppale ko te loolu yaakaar naa ne ku fi teew lu mu néew néew yéene nga ko ci moom ñu ñëwoon rek doon def témoignage boobu ci moom jaajëfal ko yàggul lool maag moom ñoo àndandoo dem Italie ba léegi wéttal boobu mu doon wéttal bu ñu rombee ci yoon bi mu ngay photo naan ma waaye Serigne nañu photo ma solee jàllaabe mun ma waaw Serigne jàllaabe bii moom xanaa ma ne ko ah, attention nag man samay jàllaabe dafa am ngale ñu li ci boole loolu yëpp dafay wane rek rapport bi ñu yàlla boole ñu di ko séedaloo mbooloo bi ci teew waaye kilifa yi nga xamante ni mën naa wax ni kër ga ñu jóge ne ñu fa bàyyi ñoom lañu ci fi fekk ñu jaajëfal sëriñ Bachir ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla la yàlla taxaw te mottali sa yéene màggal ji ñu jëm yàlla defal lu ca ndam tabaarakallahu lu kawe lu ñu te séntu defalaale ko kilifa ga fa nekk di nu Muntaxa ak mbooleem ñi ñu si tudd ñëpp ci ay kilifa defe naa oustaz Cheikh tudd na ñëpp ndax moom wax naa léegi ma ni bu ñu ko bàyyee boo moytul sept heures lañ fiy ndax ku mu wax dana wax ci moom jiw te bëgg naa wax ci moom jiw te xam naa ni nii amuñu jot ma ne ko Cheikh abrégé commentaire bi ñu waxante ñaari baat man te xadara ba

تاريخ الشيخ الخديم تاريخ الشيخ ديال الساغو يونو مريد ديال الساغو بو نيوي سي تي كابا مير جادو نانيو سانت لا غرام داماي واخني مسؤول داي نيما مسؤوليا responsable داي نيما لا responsabilité دك لتا دك لتا في nga taxaw ci sa keur mam cheikh seydi alhadji malik responsabilité yi nga xamni yang ko fi jël taxawee ko kër gi day delluwaat ci béy bi Serigne Touba doon ñaan ay sëtal te nga bokk ci zurriyatan tayyibatan tujaddidu nahja nabi Mustafa kon simaali ñëpp kontaan nañ ci yow nga nit ku baax yor ay jikko yu rafet keneen tamit sallallahu alayhi wa sallam nee na aksaru maa yudxilul janna taqwallahi wa husnul xuluq ñi ëpp ci ñuy dugg àjjana mooy borom ñi ragal yàlla ak borom jikko yu rafet yi ci jikko yu rafet yooyu kenn jiituwu la ci foo fekk nit ku baax da ko jox cëram wàcc sa bopp te mën a diis lool ndax li war a daje ci doomi soxna yëpp ñu ngi ci yow xam-xam fit njàmbaar mën a jël responsabilité bi bëgg sa kër maam aar ko loolu lépp ñu ci yow kon yal na la yàlla defal jàmm la ñuy waa Kébémer di ko jaarale ci maire muy sunu mag di sunu xarit di sunu wëllëre di maam gàññi ci ak ñi fekk ñëpp maa ngi ànd ak Serigne Mame Cheikh ak Serigne Pape Alioune Aïdara di sant ñi ma fi fekk Oustaz Pape Alioune maa ngi lay sant Abdoul Aziz Ali Ndiaye sa taalibe bii wax nga leen ni ñu ngi dem ci màggal bi màggalu Touba taalibe yi Serigne Touba yi mënuñu ko ci Touba te loolu sa waajur bu baax moo ko digaloon foofu këram al amin ay këri sëriñam la nee na foofu sa kër say këri sëriñ la macha allah muy jàmbaar lool te nit ki lépp lu muy def ci kanamu ay kilifaam continuer ko ak mu jot mu yokk ko am na ci ndigal te ndigal moom laa taxawlu sayan bi xayri isnin falis lu sàrtun fi xamul sani jëf mu ànd ndigal sàrt la ci la ngay def suñu borom nangu ko kon maa ngi nuyu président Malick Diop di nuyu Bouba mii di suñu frère di suñu xarit Oustaz Modou Fall alxuraan dégg na tey ndax ñun Serigne Touba dafa wax ni ومن يروي غسلة لله منصرفا عنه فقد فاته حبل الوصالات كو بغا ديم في يالا تي في القران دو يا دو دو اد فهو السبيل الذي ما فيه من عوج ما فيه من عوج خا ما جن كو سيرين دا مكو خاو فهو سبيل الذي ما فيه من عوج لمن يسير الى موت الرقبات موني موي يون ويغا خام امول بن دغ دغ يون ويغا خام ني يون وجوب بي اغال نيت في يالا تا موي يون ويغا خام ني بو تي دوخ داغا داجي تك سي خيمم تيف ني نكو موي وان يون موني امر ونهي ووعد والوعيد معا قد اثبتت فيه ارسادا لخيرات موي ديغلي تري digee ak wattani ko mu ni loolu lépp sunu borom saxal na ko ci alquran ngir mooy jubali nit ñi mu ni faman yu dim xidmatahu xasda wajhillahi fa innahu sawfa yaxsa bil atiyaati mu ni ku sax ci alquran di ko liggéeyal te yàlla rek tax lépp loo bëgg ci ay xéwal yàlla dana la ko doon mu ni waman yakun fii jamii dahri muctasiman fa zalika min ahli wilayaati nee na ku jàpp ci alquran te bàyyi woo ko ci wàllu yàlla yi nga bokk dëgg la alquran ku ko mokkal te saxoo ko di ko jàng bu ëllëgee bokk nga ci ñi nga xam ni yàlla da leen di fab di leen yëkkati di leen puukare woo ci kanamu jaam yàlla yi soxla soxla yonente bi wax ni sallallahu alayhi wa sallam man arada dunia fal yaqra al quran wa man arada al axira fal yaqra al quran wa man aradahu ma maan fal yaqra al quran

loolu am na boo xoolee concours général yi am ci biir réew mi li ci ci àdduna bi position yi Sénégal di jël nga xam ne Sénégal yàlla def na ci ñoom alxuraan te kenn defu ko ci ñoom ku dul Seydi Alhaji Malick ak Cheikhul Khadim si Ahmadou Bamba kon concours général boobu Serigne Abdoulaye Diagne def mooy profité bi ñu ko di aussi ñu nuyoo ci moom di ko santal Modou Fall ak Moustapha Ndiaye yàlla ñu leen ci fay Moustapha di seen taalibe ki ko yàlla baaxal. am lay bokk kër Serigne Touba. yàlla boole leen ñu mel ni ñu bokk lay bay. day symboliser alaaka baatiniya bi dox diggante Serigne Touba ak Serigne Alhaji Malick. alxuraan nag mooy lépp. mooy lamp bi nga xam ni ku mu leeral. sa mbir leer àdduna ak alaxira man ahabba an la yanqatia amaluhu baada mawtihi fal yansur ila almam képp koo xam ne bëgg nga boo fi jógee saw yiw du dox te ba bar sax gën a tëdd del na saare xam-xam Oustaz Modou Fall dugal taxaw li sa sëriñ wax dal na xel alxuraan di nga nekk di ko jàngale mokkal ko ba pare di ko jàngale te yàlla yonente bi wax ni xayrukum man ta'allama alxuraan wa allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba pare di ko jàngale sa sëriñ seedal la lii mu la seedal te Cheikh Moustapha Al Amin mii du waxe pakke la mukk wallahi alazim du sete kenn ay fleur kenn du ko jaral muy wax lu la neex ndax lépp lu muy wax dana ci bàyyi xel diggante bu borom lim seede ci yow suñu xol seet na na nga gën a góorgóorlu fii nga teg sa tànk foofu la alxuraan mooy lépp Seydi Alhaji Malick li mu am ci alxuraan la fa amee Seexul Xadim li mu am ci alxuraan la fa amee moo tax mu wax ne bi xidmatil quraani wal xadiisi yasbutu laa bi sahabin mawusi kon jërëjëf si Malick sunu xol seet na kontaan nañ yal na la yàlla dolli jàmm yal na la yàlla sàmm kàddu yi rafet na kontaan nañ nii la taalibe di mel ci wetu sëriñam man adima waaw waaw sëriñ maam Cheikh nee bi ñu taxawalee AIS 2016 2014 bi ñu ñëwee ci sëñ al Cheikh Abdoul Aziz Al Amin boole la nag Sidi Ahmed ba pare boole ko di fay seesi. waaw da caa bokkoon macha allah kon nag waaye sëriñ bi AIS nag war nañoo renouveler bànqaas ndax yàgg na ci président bi trop. te waxuñu ci dara te président bi moom 2014 bu demee 10 ans président yi di jaaroon sax dem nañu kon ay yoon dañu ko ñu yëgee affaire yi kon sëriñ jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh